gërëm leen sant leen ci ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di 5M TV Sénégal di ci teewloo xibaar Ousmane Sonko mi nga xam ni bég na loolu ci bi mu gisee professeur bi nag di wuyoo ci turu Jàmme Seen moom nag limoonu jëwriñ yi dalal na ko sax nag ca audience bi nga xam ni rek def nañu ko ci vendredi bi maanaam aljuma ji ca primature moom nag ki di professeur bi ma ngay wuyoo ci turu Jàmme Seen mu ni mbir mi nag fi mu nekk nii fës na sax ci réseaux sociaux yi ñëpp ñu ngi koy partagé waaye itam ñëpp rek ñu ngi koy daal di seetaan moom ilimoonu jëwriñ yi mu ni kon bég na loolu ci ki nga xam ni moo ko jàngal ci ki nga xam ni itam moo ko rek daal di dimbali jëm ci nag wàllu njàng mi tey jii mu ni kon rëccu ko benn yoon te am na na ko neex nag jëm ci li nga xam ni moom la ko gis waaye tamit jëm ci ki nga xam ni moo ko daal di teg te ci wàllu primaire bi moom ilimoonu jëwriñ yi ba tey mu ni kontaan na loolu nag ginnaaw bi nga xam ni gis na ko moom mi nag di professeur bi nga xam ni nag jamono ji dafa retraité te mu ni lu am solo la daal di def ci moom